je sais pas ban fan la wax bi jógee nan la bàyyi li créé wax bi ak nan la demee parce que heure bi fekk ma dënd parce que damay yeewu fajar dëgg la je peux même pas dormir je suis dans ma chambre comme ça sama fauteuil laa toog nii mhm. sama jabar elle est en de pleurer mu ngi ci salle bi mhm. dafa metti dëgg la parce que jamono yi yëpp li dal suñu kaw dafa bari dëgg la ñu toog suñu biir kër toog jàpp suñu ñàmbur Mm-hmm. Et là, c'en est de Mm-hmm. C'en est true trop. Bay ton gama ah. Sama papa nga main ton gama ton gama truk ton gama truk ton gama truk baik nga ton gama truk truk truk truk ma trop trop trop bu fekkee bu fekkee wax naa bay ili ni ko man ma wax ni da nga dee. Bu wax ko lol Ah. yàlla na musiba yàlla wàcc sama kaw. déedéet déedéet loolu moom moom. déglul taalibe jullit laa damay woor. Mhm. damay jaamu yàlla. Mhm. du ma tooñ man. xanaa tayaat ni may tayaat ñu naan dafa ëppal dafay def gros mot dafay nangam te loolu defuma ko pour blesser kenn. du ma tooñ. ma togn nit ñi xam ko man duma ma tooñ bis buma buma fekke man bay jeli ci téléphone am moom bu mhm. ka kaamir tek ci ni sa neex moma ma wax ni man ma wër di wax et puis limu wax mo gram xam nga limu wax dafa ni bi ma dégloo guddi bi dafa ni gaay ay ay doom ram lañ wa dama dégg saga bi mhm. wa dafa saga mhm. kon man amna fu ma kañ am fu ma tek bay jëli bu gennate wax ni sa neex moma wax ci gémmiñam ak sama nopp ni man ma wër di wax ni da nga dé yalla bu sifa yalla wacc sama kaw ba Sénégal yépp tek ci seen bëj barki Mouhamad dëgg la dëgg la dama ni woon sama aduna dina def sama carrière théâtrale ba mu jeex tàkk te doo demanti kenn duma ma xastante kenn duma duma duma wax kenn lu way wax muñ na ko mais je peux pas laisser partir je peux pas. je peux pas. dëgg la sama xarit sama jabar xaritam yi. Mm-hmm. suñu téléphone yaa ngi sonné à trois heures à trois heures du matin. waaye mm-hmm. Eli tooñ na ma lan laay jàkkaarloog di ko wax ni man maa wax ni da nga dee. et ku toll ni bàyyi Eli emblème suñu emblème suñu suñu ñun ñun ñun. dëgg la mais gars yi gars yi ñoo ngi message ñu ngi naan nga bàyyi bu sedd que ni ñoom ñoo ngi a ginnaaw je peux pas mais affaire bi daf ko touché dugal dinaa dem ci site internet yëpp je peux pas dem ci site internet yëpp duba sama rendez-vous yëpp dama koy cancel je vais prendre ma voiture dinaa dem ci site internet yëpp parce que c'est grave dëgg la ñi ngi may envoyé yeneen audio yoo xam ne ay nit ñi am yenen yu ciy wax yoo xam ni comprendre luñu parce que dañu nekk ci réew moo xam ne tamit wax nañ dëgg bu ñu déggee lu soxor ñenn ñi seen xol dafay dafay dafay sot mhm. seen xol sotee du ñu xam lu ñu war a wax ak li ñu warul wax dëgg la li seen xol njëkkat wax jot rek la ñuy wax te mënoo tontu ku nekk mhm. mënoo fee nekk di tontu ku nekk fii fii dëgg la mënul nekk mënoo ko mhm. mënoo ko d'accord d'accord barki salaatul yalla buma ci sante ak yonent bi luma wor yalla bu ko sunu borom nangu illahi wallahi ta'ala waxuma bàyyi ni di dara papa yaangi ngi tane maa ngi tane tànk beeg loxo bi yalla yalla bëgg sa bop man de sama jabar moma won ni affaire yi mu ne ma du deug maangi ni tok c'est ça après man nan lay démé di wax bàyyi fili man ma wër ni di wax ni tak tak tak tak tak tak dee fi fi lima lek mi ngi billahi li ma lekk mi ngi ma mi ngi remonté di génnaat sama sama